الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جسان فيدو كوشي تي في جسان فيدو وأنفقوا عن الهوي لنا آلك السلام سلام عليك يا ملاغ البذر وما دغير dugg ci programme bi li nga xam ne dañ daan ko njëkkee mi xatmu alquran ci kaamil yiñ jàng buñ ko jàngee ba pare sëriñ bi moo ciy topp war a def conférence am waaye ñu jox kii hubbeeg alquran encore ci conférence mu hubbi bu sëriñ buñ hubbee ba pare danañ présenté gan ñi ak ñiñ tuddee bés bi jox sëriñ bi mu conférence parce que temps bi dafa dem ñi ngi ko doon jox xat mu jot doomi suñ maam di suñ sëriñ di maam doomi maam alaaji roqi ñang ñu gën koo xam ci Cheikh Oumar ñang mi ngi nii toog yàlla def na xag si na at mu jot ñoom ñoo daan ñëw di ko jàng xaj na tey programme yee bëri waaye bëccëg la don doon léegi yéen ñëpp ngeen ànd déglu parce que fi ñuy jàngee mottale alquran riw wu rëy la waaye nag ànd ak ngeen déglu ñu ngi leen ñaan ngeen déglu yéen ñëpp bu jàngee xat mi ba ba pare léegi danañ jox jotaay bi lii tëj la tëj kaamil yi ñu doon jàng la bu ko defee ñu doog a commencé conférence bi kala aada ci pey bi jox sëñ Omar Gueye mu hubbi ak al alquran ñu présenté suñu gan jox sëñ bi bu ko defee moom mu commencé conférence bi ngeen baal ñu àq nag parce que temps bi dafa kat moo tax duñ guddal wax ji sëñ Cheikh bisimillahi rahmaani rahim ñu kon ñu yëf yaa ngi noonu aousubillahi min a irajim bismillahi rahmaani rahim qul wallahu ahadun samadu lam ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد الله أكبر لا إله إلا الله ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر قاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس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 وهو أصدق القائلين ومصدقين ونون على سالك من الصاهدين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورضي الله عنه عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن جراح وجعفر والهباس والجعفر والهباس والحقيل والحسن والحسين وفاطمة وخديجة وعائشة وسائر أمهات المؤمنين ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين وتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين تابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل القرآن عصيم ربيها قلوبنا اللهم نوّر به قلوبنا وقبورنا وصرح به صدورنا ويسر به أمورنا ووفقنا لما فيه رداك عنا اللهم اجعل القرآن العصيم أمامنا وقائدنا إلى الجنة ولا تجعله خلفنا سائقنا إلى النار اللهم اجعل القرآن العظيم صافحا مصفحا فينا ولا تجعله ماهلا مصدقا فينا اللهم اجعلوا لنا ولا تجعله علينا اللهم ارزقنا تلاوته على النبي الذي يرضيك عنا ولا تجعلنا سنبا الى كفرته ولا هما الى فرجته ولا دينا الى قضيته ولا مريدا الى صفيته ولا حدوا الى كفيته ولا ولا خائبا الى ردته ولا حاسيا الى عظمته ولا فاسدا الى أصلحته ولا ميتا إلا رمته ولا عيبا إلا سترته ولا حسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا والآخرة لك فيها ردا ولنا فيها صلاة إلا أحتتنا على قدائها في يسر منك وعافية إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا سل الجلال والإكرام اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وانفعنا بما فيه من الآيات والسكر الحكيم اللهم علمنا منه ما جهلنا وسكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته وحلاوته آناء الليل وأطراف النهار ابتقاء مرداتك اللهم ما قدينا فيه علينا من قدائه فاجعله عاقبته رسلا ربنا آتنا في الدنيا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا وصولا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 ربنا ربنا سلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أسواجنا وسرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا خلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا ربنا يا خالق الهوالم قل بيننا وبين كل سالم يا ربنا أنت ترى ما قد جرى فاقسم بقهر من علينا جسرا يا ربنا هجل لنا بالفرج ونجنا من ديهة الهرج وامدد حملينا من من همنانك الأمنع التي لا يرام واجعلنا في جوارك الذي لا يغفر ولا يدام اللهم إنك اللهم إنا ندرو بك من من بهور أهدائي ونعوذ بك من سرورهم اللهم أكفناهم بما سيت اللهم أكفناهم بما سيت اللهم إنك أعلم بأعدائنا وكفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم اغفر لهينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنسانا وحاضرنا وخائبنا وهرنا وعبدنا وتائهنا وعاصينا اللهم اغفر لنا أجمعين وتوفنا مسلمين وأرسنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وفينا ما أهمنا وما لم يهمنا من أمور الدنيا والدين وكفنا أيدي المهتدين ولا تجهل فتنة لقوم سالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين واجعلنا من عبادك المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك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 حريص عليه رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواه فسبح بعمد ربك واستغفره إنه حبيبنا بكيا وسود مسلوبنا فلا أنيس سوى الجوزاء في سرمي سبحان فوافق الرسول قد ارتدى في من طوفان أبو أبو جاهل أمن سقاه أمن تقواه في بلي جودا كهاتمي تقوى كدابعة فقها كمالكنا في الحسن كالبدر كل الذين قره الشيطان هو فقدا صقني هماما في قال الشيخ في صقني إن قلت فيه كمال فضل كمال فضل لا حجب فسأصله لا يرى في قابل العسر عليه صلاة الله ثم سلامه وآله وصحبه كرام بررة صلاة الله سوى سلامه ويلقى عدو الذي صوتا مدمعا وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم بايس sëriñ Maay Ibrahima Niass yal na yàlla yokk fanam yokk ko wér yokk ko kàttan ci barkeb rasulullah ci barkeb baayam ci barkeb maamam ñi ngi koy sant ñi ngi koy gërëm ndax ma damay wax ne sëriñ bi mënuñ koo fay li tax mënuñ koo fay mooy heure bu Touba Niane soxlaa mu dëgg hitteem dox gi ay soxlaam sonn trop yoon wi ni mu jafe-jafe ak lu métti métti mu ñëw fexees ba ñëw Touba Niane ngir rek maanaam bëggal waa Touba Niane maanaam ànd ak ñoom ci seen bés bii loolu rek moo tax mënu koo fay ñu ngi lay ñaanal yàlla sëriñ bi yàlla na yàlla sa fan yàgg yokk sa wér ndax fekk naa ko ay yoon waaye heure bu ma demaan ci moom li may njëkk a wax mooy Touba Niane daa leen si Touba Niane daa leen bon mooy waral ne moom jox na cër Touba bu baax a baax ànd ak lim lim metti metti Nigéria la bàyyi ko barki dem ku nekk xam na Nigéria la fa nekk ak coono ba fa nekk ak xat-xat ya fa nekk ak maanaam lim jàngaanteeg ta yaram dafa yaramu mag surtout yaramu mag dafay xaw a sutaati toujours lekk léeg wax dëgg yàlla mu jàngaan te loolu lépp bay ay yitteem ñëw Touba ñaan wax dëgg yàlla bon ñu laa fay mënuñu laa sant sant gu jàmm lu ñu mën a wax rek mooy ñaanal la yàlla yàlla yàlla fay la yàlla na yàlla gërëm ci barkeb sa baay barkeb sa maam ci barkeb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant itam ci délégation bi mu ànd ak ngi ànd ak El Hadj Tambédou dégg nga mu ngi ànd ci mi ngi bokk ci délégation bi ñu ngi sant itam ñu ngi présenté itam délégation. tay ba ñeneen ki ko jité moy khalifa bi di al aladi Amadou bukar and ci ak suñu serigne Cheikh Amar ñang tay ba tay ba ñeneen ñing koy sant ñing koy gërëm diko ñaanal yalla di la ñaanal yalla yeen ñep yalla yalla yok seen fan yok seen wër ñi ngi sant mbooleem wa tundu bi damay baña guddal ndax suma su da fay da fay ki ndax dafa xaw a guddi te serigne bi mi ngi ko léegi rek dëkk bi ñu ko ah kër yoro coono bi mu ànd yëpp moo tax ñu bañ a guddal def directement rek ci conf ci waxtaan bi ma ñu ngi sant délégation yi fi teew yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw fàtte wuñu tim mbooleem fu waay bàyyeekoo ci dëkk bi suñu limee dañuy juum moo tax mënuñoo lim xam nañ ñi fi teew mbooleem tund wi li nga xam ne mooy arrondissement bi département bi commune rurale yi commune bi commune yi fi wër yëpp ñu ngi leen sant ñu ngi leen gërëm mënuñu leen a fay ba ñu ngi leen di sant ñu leen gërëm ñu ngi leen ak ñu ngi leen ñaanal yàlla yàlla yàlla yàlla fay leen tànk yi ngeen demee ak yi ngeen dikkee yàlla ko yàlla gis ñu ngi sant itam suñ mbokki bopp yi muy ñi nga xam ne tey ñoom nañ bokk dëkk bii muy Touba Niane damay wax ne feccam gone su neexee baay jaa yaay jaa jàpp ca bagg ya bon nag mënuñoo am seen a fay ah damay wax toujours rek ne maanaam su ñëwoon fekk mag ñi di tëgg ay làmb di organiser ay ndaga di def leneen lu may lii boobaa ci loolu la ñu nekk waaye yàlla baax na ñu ngi sant yàlla mag ñi mën nañoo tiitaroo gone yi waaye gone yi itam mën nañoo tiitaroo mag ñi su mag ñi baaxutoon gone yi duñ danañ am beneen melokaan biñ melo bon nag ñu ngi leen sant ñu ngi leen gërëm li ko dalee ci borom dëkk ci imaam mag ñi fi nekk góor ak jigéen ñëpp ñu ngi leen sant ñu leen gërëm amuñ seen fay yal yàlla fay leen yal na yàlla fay leen yal na yàlla takkale dëkk bi yal na yàlla boolante waa dëkk bi ba nga xam ne lépp lu ñuy bëgg yàlla ci dëkk bi yàlla ñu defal lañu ko damay wax ne nag nit ñi ci boppam nañ nañ leen góorgóorlu ba nga xam ne dëkk yi suñ dëkk yi ñu ñu ko du ma guddal ndax dafa sëriñ baa ngi teew te li ma waxoon rek moo ci nekk damay ñaan sax ndigal damaa war na ñaan ndigal te moom laa war na njëkkee ndax la may bañ la nga yàlla waxoon yonent bi sala la yàlla waxoon yonent bi salaa sallam dégg si la yàlla waxoon yonent bi ay gaayam ne ko yaay la si na amanu laa tuqaddimu bayna yaday laahi wa واتقوا لا إن الله شم عالم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجعلوا له بقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون نمجي تجي بين إن الذين يقودون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين أمتعنا الله قلوبهم بالتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم لولا تي ciy واو لولا loolu laa bañ تي موم موتاخ ci moom moo tax daanaka kàddu yi ma yëkkati nii du kàddu yoo xam ne maanaam war naa koo yëkkati waaye dama ko ci ñaan سيرن rek te loolu laa war di la ñaan jéggalu ci kàddu yi ma yëkkatu ndax waroo waroo toog mukk ñu yëkkati ay kàddu en tant que taalibe ci ci ci kër gi ñu ngi sant itam parrainé yi suñ mag ñi nga xam ne moom lañ ko ñoom lañ ko parrainé muy ki nga xam ne moo ci jiitu muy Jibril Diop ca ñàpp bal la ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm gis nañ fi jabaram ak délégation bi mu àndat ñi ngi sant itam suñ baay joo xam ne baay la joo xam ne kenn mënu koo fay daayira bii Fum hadd xàgg gannaaw yàlla yonent bi moo fa ci ñaanam la xàggee ndax musu ñoo dem taxaw wax ak mom te ñaan lu ñaan go xamne ñaan xaas la ñaan go xamne kenn mënu ko wérante buñ ko féré buñ fa préé rek buñ ko bàyyee ko rek dañuy ñeme bon nak ñu koy sant ñu koy gërëm Baye umar amuñ sa bay yalla la yalla fay yalla yalla yok sa fan kenn mënu la fay dekk bi gone bu ñëw taxaw ci yow ñaanal nga ko jigen bu ñëwé taxaw ci yow ñaanal nga ko mag bu ñëwé taxaw ci yow ñaanal nga ko ku mënta ñëw taxaw ci yow ñaanal nga ko ba nag ñu lay sant ñu la gërëm yàlla na yàlla yokk sa fan ak mag ñu ko bokk ak suñu surtout suma baay suma baay moom itam suma baay Abdou Mbine maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm damay wax ne su ma fekkoon su ma ko fekkoon mu nekk ci leneen boobaa ci loolu laay nekk te duma ci man dara waaye yàlla baax na lépp moom laa koy sante ndax gannaaw yàlla yonent bi daayira bi ma jiite woon Italie jiite la ko jiite ko fa fanweeri at ma jiite ko fa ñëw fii jiite la fii yàlla ak moom la su ma yaroon ci leneen ci loola laay nekk bon nag maa ko sant bi nga xamee ne yar na ma ci topp sa yàlla topp Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu nekk ab taalibe di bay ci yoon woowu ak mboolem ñu mu ko bokkat maa ngi leen sant ñu ngi leen gërëm Jibril Diop itam ñu koy sant ñu koy gërëm ànd ñëw na ak délégation ànd ak jabaram ñëw fii def délégation bu mag ñu ngi leen sant ñu ngi leen gërëm ñu leen ñaanal yàlla ndax moom itam wax dëgg yàlla kóllëre guñ am ak moom moo tax ñu tuddee ko ko damay wax ne ñun parrainé yi li ñuy def nii jubluwuñ ci xaalis jubluwuñ ci dara liñ ci def rek mooy dañu seet koo xam ne wax dëgg yàlla li muy def ci dëkk bi wala li muy def ci réew mi wala li muy def ci tund wi jaral nañu ko ndax hubbul watani min al iman damay wax ne nit su ne bëgg naa dëkk wala bëgg naa sa tund wala bëgg nga dafa defar mi te maanaam doxoo ci waxoo ci taxawoo ci defoo ko boobaa li ngay wax nekku ci yow looloo tax képp koo xam ne jóg nga ngi taxaw pour defar dëkk bi wala wax ci dëkk bi wala defal luy doxal dëkk bi wala luy doxal réew mi ñun ànd nañu ak yow te lu ñu am itam mën nañu ko bokk mën nañ koo bokk yow loolu lañ ci jublu waaye jublu wuñ ci leneen bon nag ñu ngi koy sant ñu koy gërëm bala maa baxi nag du ma dañ di sant mboolem ñu fi teew ñu baxee koo Dakar it maa leen sant di leen gërëm gis nañ leen seen mbéy gis ñi nga ànd ak ñëpp gis nañ leen ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm di leen ñaanal yàlla Ibrahima Padaan Cissé mi bàyyee koo Kaolack euh, euh, Dakar ànd ak mbéy gay ñu ngi leen ñu ngi leen sant ñu ngi leen gërëm ñi nga xam ne it ñoo bàyyee koo syndicat di samay xarit bopp di sama mbokki bopp ñu ngi leen di sant ñu leen di gërëm ñoom ba bay bay bi tayin ak ñoom ñëpp ñu leen di sant ñu ngi leen di gërëm wax dëgg yàlla daf nañ délégation bu mag ñëw teew si ànd ak waaw ànd ñëpp ñu leen di sant ñu gërëm gannaaw bu loolu weesoo man maa ngi sant samay bopp su ma mbokki su may mbokki bopp ak samay dëkkandoor yi bopp muy lan muy daayiratu hisbullahi bii nga xam ne ñoom laa bokk ñoom ci seq koobu moom ñëpp moom mbir yi damay wax ne maanaam gone yi maanaam ñoom ci boppam bokkuñ ci ñi nga xam ne la si ne damay wax ne lazina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillahi summa laa yatba'uuna maa anfaqu mannan wala azan lahum ajrum inda rabbihim laa xawfun alayhim wala hum yaxsunuun suñu bokkoon ci ñi nga xam ne suñ defee ab dërëm suñ defee ab dërëm di ko di ko di ko di ko jooytu wala ñu koy xeñtu lu koon duñ def lii duñ sonn ci lii bon nag ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant yàlla na yàlla fayoon yàlla na ngeen ko gën a man yàlla na ngeen gën a taxawu dëkk bi taxaw ci lépp loo xam ne lu dëkk bi fas yéene xam la lu mu mënta doon yàlla na leen ko yàlla mayloo bon nak ñu leen sant ñu leen gërëm ñang leen ñu leen ñaanal yàlla wa bañ sa la nga xam ne ñoom gannaaw yàlla ñoom tubi yàlla mo dafa ñu takkale ñu ki nga xam ne nak mo ñu takkay won ak mom ki nga ta nekkon fi te dëkkut fi muy Abdou ñaan oustaz Abdou ñaan ñu koy ñaanal yàlla yàlla mo ne kullu nafsin sa'iqatul mawt wa kullu man alayha fani wa kullu shay'in halikun ila wajhihi aynama takunu yudrikul mawt walaw kuntum fi burujin mushayyada lolu motax tax fi te defuñ lu yàlla tax mu jëlee ko fi ñun tim defuñ lu tax mu yàlla bay bàyyi ñu fi bon nag ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm di ko ñaanal fam tëdd yàlla ñu nag barkeb guddi gi wàcc ci moom ak mboolem ñu ngi ko bokkat ak ñi nga xam ne dañ ko fekke woon daaw te fekkuñ ko fi ñooñu ñu ngi leen ñaanal yàlla ñu leen sant ñu ngi leen gërëm ñu ngi leen di eh, ndokkeel alaaji Jimba Diouf boobe daanaka su ma limee damay juum ndax ñi fi nekk bëri nañ te suma mbokk yëpp kenn ku nekk teew nga teew nga ak sa jëmm teew nga ak sa xalal teew nga ak sa kattan teew teew nga ak sa man-man kenn ku nekk ñu ngi lay fa nga nekk ñu ngi lay def ñëpp am loxo tàllal la ko sant la bu ñu amoon leneen lu sant dañ ko wax waaye nag sant rek lañ am yàlla nag moo xam li nekk suñu xol yi yàlla na ko yàlla fay fayal lañ fayal ñu leen mboolem ko fi teew yàlla na yàlla fayal fayal ñu la ci barke yonent bi sallallahu duma wasallam guddal damay gàttal ndax jëmm ji toog fi maa warumaa yëkkati sama kàddu ci kawam waaye dama ko damay ñaan jéggalu rek ak moom mu jéggal ma te xam ne maanaam ci xol bu fees rek laay waxee ak kontaan ci moom ñëw gim ñëw fii tama xam ne lim jàngowanteeg bëri na coono yim jàngowanteeg bëri na tam mag la fu mu nekk nii su ko neexoon yebal xam na téeméeri nit wala junniy nit yoo xam ne su la njaboonoon ku ci ñëw doy nañu ndax jëmum lañ ko xoolee ku ñëw rek ne sëriñ sëriñ maa yi moo ñu yebal rek doy nañu ndax jëmum lañ koy xoolee ba ñu koy sant ñu koy gërëm ñu koy ñaanal yàlla sëriñ bi yaa xam ni nga bëgg yàlla la ko yàlla defal ci barkeeb sa bàyyi ji ñu ngi lay sant ñu lay gërëm ñu ngi sant képp ku fi teew ñi góor ak jigéen mag ak ndaw góor ak jigéen di sant waa dëkk bi jigéen ñi ñu ngi leen di sant yéen tim wax dëgg yàlla bi ñu bale dëkk bi sonn ngeen ci daf ngeen ci seen kam lay kàttan daf ngeen lépp Naabo Ndiaye mbuuma sëriñ sëriñ Naabo Ndiaye <coughs> moom itim teew na ñu ngi koy sant ñu koy gërëm du ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla fay ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam bon nag daal li ñuy wax te ko te gàttal ko sëriñ bi xat na te fu mu nii dafa war a delluwaat te ci ay conférence yu bëri la jaar wax dëgg yàlla ñu ngi koy ba ñu ngi bàyyi wax ji gàttal ko lii lu ma mëntoon na ñàkk wax rek la moo tax ma wax ko ñu ngi sant ñu ngi gërëm ñu ngi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñoom lañu tuddee bés bi sëriñ bi tëbuñ tëb rek tuddee leen ko duut yaa ma neex rek duut yaa fi mag rek duut yaa fi ëppale rek wali kulli shay'in sababun ñu ngi ciy njëkkee ci kan ci suñ baay ji toog nga xam ne baay la ci ñenn maam ci ñenn bokk ci mag dëkk bi nekk ku sell nekk ku wi dimbale ñu néew doole ñi te du ci boole wax tële na ci wér yaram tële na ci bëtam waaye xamul lenn lu baax luy xam ki gën a tuuti ci dëkk bi ba gën a nekk mag bés ni ki tey bu desee ak yow day waaf ci sa kanam day wax bay jooy man benn laaj ku bëgg bàyyi wala nga bëgg Seexu Tijaan bu la gisee du taxan ak sogoom ñu xool jikkoom yi rafet yooyu ñu bëgg nit ñi roy ci moom ci lenn ci ñun ñi nga xam ne ay ndaw lañ far looloo tax ñu tuddee ko bés bii mu dëkk ci dëkk bii xat mu jot dañuy seet ku mel noonu ci dëkk bi ñu tuddee ko keneen ki ci des dañ koo xam fii xam ko ci biti nekkul fi de ma nga bitim réew waye du affaire halal dafa nek ko xamne dafa am wólëre ak kólëre ak dëkk bi ak domi dëkk bi ta alquran mo ñu wax ne wa awfu bil ila idal hadd kana masulan wa awfu bi hahdi uufi bi hahdikum wa al hadd isa hahadtum aaya yooyu takka ñoom mu ñu am ñu gis ko mu nek ko am kólëre ci bitim rew am kólëre fi ba muy nek fi nga xamne demagut fenn nok xana ak ñom ñoom ak dëkk bi ba bés ni ki tay ci loolu lay continuer gis nañ ko daal mii maalaayeen sarif loolu ñu xool jikko jooju ñu bëgg ñu roy loolu moo tax tuddee ko mi ngi tudd Jibril jóob kii mi ngi tudd Baye Omar Bun ñum ñoom nag dana leen neex lool donte ñaari kaddu la ñi ñaan ñu gàttal ñoom it ndax sëñ bi dafa war a dem ñu wax ci sa kanam moo leen gënal nga dem ñuy doog di wax alhamdulillahi rabbil alamin اللهم صل على سيدنا محمد فاته لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم القائل فيما رواه المسلم من حديث جرير بن عبد الله من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من حمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء مولاي الشيخ محمد الماهي إبراهيم عبد الله نياس السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن هذه المجالس التي ندعى إليها والتي نتلاقى في رهابها هي واحدة من هذه السنن التي آثار إليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك أنها خرس من خراس يمينكم وإذا علمنا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لعلي بن أبي طالب في قسوة خيبر فيما رواه إمام البخاري لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس أو خربت وفي رواية من خير من عمر نعم وإذا علمنا هذه الأجر التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لواحد يجري الله سبحانه وتعالى الهداية على يد إنسان أو عبد من عبيدك فكيف إذا تصورنا هذه المجالس الموصولة الحرة لكم هنالك من هقول هديت وكم هنالك من أفئدة رقت وكم هنالك من نفوس سكيت في خلال هذه الدروس من قريب أو بعيد فهنيئا لكم الأجر الموصول على هذه الهداية المضطردة المستمرة ولا شك أن الأجر سيبقى طالما كانت هذه المعافل دائمة وطالما كانت هذه المجالس المستمر وأسأل الله تعالى أن أن يوفق لنا جميعا مبكي شيخ محمد الماي نيو di la ndokkeel ci mbooloo mi portole la portole boo xam ne am na cosaan ci diine cosaan li mooy lan mooy alaaj Abdoulaye Niass al awal Baye Niass moo wax ne ci bind ku ne sëriñ bu ne tëralal nga ko dars ci kaw suuf ku dul Maxtaar Njaay loolu amut Maxtaar ñaan Maxtaar fan Njaay ñaan loolu amut cosaan boobu tey moom mooy lisaanu xaalu jotaay bii ñoom ba ñuy dajee bañ ne maalaaji egsi na maam Matar daf ne jox leen ko mu bindal xale yi ñu jox ko mu bind bi mu ñëwee mu xool bind yi ne ah alaaji Abdoulaye kat doon naa dégg alquranam ji waaye xawmoo ni nii la mel kon tey su fekkee ne Mouhamadul Mahi al mudir maadul Abdoulaye Ibrahima Niass ci Kaolack ala cheikh mouhamadul maahi mufassir alquran ca maydaanu madina bàyyi moom lañ tertu jéem koo tegal place bu mel nii ci tëtëb matar fanjaay ñaan moo tax ma ne lii apporté la boo xam ne lisaanu xaal mi ngi ñuy joxoñ démb moo tax baat yi ma junj ci arab cheikh maayi jotaay bii bi mooy fukki yoon ko koo lu bi am sil xarib ña ngi ko dégg fan ca Nigéria bi am si faqat ñu ngi ko dégg fii bi mu wàccee dakaar ci aéroport bi tey mu ngi nii ak ñun Sénégal ak dak Touba suba mi ci xutuwaat yoo xam ne cosaan bi moom wane na ko ci jàngaleem yi mais cosaan bi nit ñi dajee fii yëg nañ ko kon sëriñ bi Baye Umar Bun mi nga xam ne moom lay waxee ci làmmiñam te mbooloo mii di ay xale tuddee ko bés bi fi ne mag la waaye fii la sosoo wër ci ay daara laxas jàng ba xam fu laxasu dem liggéeyi génn réew wan gannaaw njabootam dem uti lu mu am lu mu dundee bam lew ko mu dellu si ñëw dëkk ci dëkk dellu si dëkk bi mu dëkkoon jëmmal fi mbaax ba xale yi xool ko tudde ko kon xale yi dëgg-dëgg association bii wala jamiye bii am nañ njukkal gu rëy Baye Omar mu ne lim leen bëgg a wax di ma ko waxloo lott naa ci xanaa lu ñuy def dañ koy delloo ci wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam niyatul mu'mini ablaqu min amalihi mënuñ koo wax waaye yéene ji jëf ju mag la ju rëy rëy la ngeen tuddee ko bes boo xam ne doomu sëriñam di sëriñam doom joo xam ne ma nga taxaw waaye bàyyam parce que mooy firi alquran ci Medina te baay bi mu ubbi école ba ci Medina lim na ñi nga xam ne école boobu di Maat El Hadj Abdoulaye ñoo ca génnee tudd na ca Mahamadi Bukaar ñang xalifaam de passage Mahamadi Bukaar ñang moom it di turandoom teew na ànd ak ilimaanu dëkk ba di Cheikh Omar ñang te dëkk bii seen mëdët seen bunt seen tëbb ci El Hadj Abdoulaye al mooy Taïba Niangène ñu ngi ni teew ñun ñëpp ànd ci suñ kanam sëriñ mu Cheikh Mouhamadul Mahi jéem a defar fauteuil bi nga xam ne. professeur bi nga doon ci école boobu nga xam ne moom la Baye Niass tuddee Baye muy El Hadj Abdoulaye te ku fa génnee di professeur wu jamono moo tax ñuy tubaañaan di jéem a rafetal futee bi saa su ne jël tur tuddee ko mag mi nga xam ne gis nañ mbaaxam jariñ na dëkk bi xeeñ na dëkk bi ñu tuddee ko ko mag mi nag mu ne dafa lot dafa kontaan ba lot waaye ay doomam toog nañ ci ronam ñëw ne ko li nga yëg ñun la gën a touché ñu taxaw daje dajale aslëf xaalis la bëriwut mais xol yim jugee ko moo rëy moo fees ñu ne danañ ko teg ci loxo organisateurs yi nga xam ne ñoo taxawal géew boo xam ne oo nañ ci doomi Cheikh Ibrahima mu ñëw Baye dafa wax oustaz Braham Diop nettali ma radiallahu anhuma ca Makka benn mag ca Makka mu diiru iqli euh, tarbiyatu mi Makka ki nga xam ne moo amee éducation ca Makka moo laaj Baye ci aj gi dafay wër laaj mag ñi mu laaj bàyyi ne ko luy sa philosophie de vie falsafa hayaati bàyyi tontu ko ne ko baslu aqsal juhuudi li tahqiqil muraadi maa ittikaali ala laay fi nataay ji jàngaleem yi tey Cheikh yi moo ko firi man tase naa ak moom ci kanam ay kilifa mu wax am na ci kenn danaa ko tudd Abdoul Mbaye la di ancien premier ministre dafa defar téere traduire ko en arabe di tànn nit ñi mu ko a yóbbul ci kilifa diine yi ma orienté ko ci jëm ji ñu dem jox ko ko mu lire téré ba taftal ci ay kàddu yu ndokkel ñu gën Abdou Mbaye ma man ci aduna kenn musuma impressioné gannaaw sama bay, mais ki impressioné na ma waye impressioné na adina nak té lu mu impressioné abina moy lan moy tarbiyé bi mu wax fi jugé ci mag mama tar fanjaay daaraam je imam asan néna ma ñetti ko leeri gu deugër gi nga gis ci ñeseen cissé ak ñang ñaan ci la bokk mané ko ah mu ne ma maam Alassane mi jur Assane Cissé radiyallahu anhu maam Hamadi Bukaar mi ñu xam di waajuru kilifa yii ak Maladji Abdoulaye Niass ñoo dajee ca daara ja faslante kóllëre ni ñun ñaar ku ci ñun ñett ñi ku ci génn àddina na sa dem ci almeeram jàngal ko alquran mu ne ma kóllëre ñaan ñes ñang Cissé gu dëgër gi foofu la juddoo kon sëriñ bi lan uttilal kalim duñ guddal daal wax ji waaye sa jotaay bi dégg nañ ci kontaan nañ ci Touba ñaan yëg na ko waaye dekkal nga jéego yooyu nga xam ne mag ñi taxawal nañ ko ñi dajee fii ay ndaw lañ yoo xam ne ba mag ñi di tasee juddooguñ waaye jotaay bii foofa la sampoo ca booba ca jotaay booba la sampoo ñi ngi gërëm ñi ngi sant eh, yéen ñi organiser Baye mar mu ngi leen di gërëm moo teg lii seen loxo mbooleem ay doomam nag ak ay rakkam ay ar jarbaatam ñoo ànd gunge ko ñëw fii ci jotaay bi pour jébbal leen cadeau boobu du ñaanal Cheikh yi gudd fan di ko ñaanal yàlla dëgëral ko ci mudiiru maat Alaaji Abdoulaye yàlla dëgëral ko ci tafsirul Qur'an bi waaye yàlla na ko yàlla dëgëral ci gunge ñu ba ca kanam a kanam wasalaamu aleykum wa rahmatullah jërëjëf sëriñ bi amin rek la ñuy wax ne sëriñ bi dafa yàkkamti torop ñetti jotaay ñi ngi koy xaar yoo xam ne nii moom moo ko war a taxawee ji waaye sun baay ji Cheikhu Omar doon wax ci turam ñun dañuy wax ne amin rek la ñuy wax parce que gis nañ ne daayira bi bu yegsee fii ñaani mag ñi la ak ñaani sëriñ bi moo tax ñu yegsi fii kon amin rek la ñuy wax ndax kenn ci doomi daayira bi moo jënd nag bi nga xam ne nii moom la ñu ganalee gan yi te biñ koy tàmbali amut ci kenn ku mën a jënd fourneau kon amin la ñuy wax ngeen continuer ñaan yi sëriñ bi ñu ngi wax amin gis nañ ñaan yi bu baax ñu ngi sant yàlla yi ñaan yàlla yàggal leen fi te may leen wér ñu may rek waa ñàpp balla Jibril Diop kenn ku nekk xam na ne ba ñuy commencé mbir mi moo ñun ñoo àndoon gis nañ fii ñu waxtaan oustaz Abdoulaye ñaan sant ko ci kanam mbooloo mi yépp kon tey suñ ko tuddee bés bi donut par hasard dañoo xam ne ji nañu kóllëre moo tax ñu delloo ko njukkal loolu nga xam ne ni yàgg na koo jëflante ak ñun kon sëriñ bi ñu ngi lay ñaan rek nga ñu gàttal euh, ci sëriñ bi dafa yàkkamti jërëjëf. alhamdulilah alhamdulilahi wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh serigne bi ñongi ñaan ndigal ci kaddu yi te kay te bëgg gattal lool ndax xam nañ yitté soxla kon gannaaw bañ nayoo mbolo mi di jël nayoo bi tek ko ci loxob serigne bi mu jot li ko mbolo mi yépp ñongi wax ci kaddu nijaay jibril mi nga xamé né nekk fi mi ngi fi ñu koy wax ne ci kàddu suñu nijaay jëmba ko mbay jóob mi ànd ak ñun ak mbooloo mi yëpp ndax ay xaritam ñu ngi ànd ak moom ak ay rakkam ak ay jarbaatam lu sëñ bi wax léegi rek moo fi nekk mooy mbir mu nekk dafa am sabab ndax moom ku xam ku ne danga ko xam ci liggéeyal pay bi ak ci liggéeyal diine ak tariqa ta ma wax ci ben bay rek sëñ bi nga jéggal mako inna alladhina qaddamuni nalu muraduhum sahadatu wa malu wa man aasha shahada iyanan wa man maata yafuz wa zaaka kullu zaman lo rek do nañu bu nitoon wa zaaka kullu zaman koroon ñu am jaxlé xamna suñu liggéey ci moom Cheikh Ibrahima du yu jarign way dana jarign te cheikh bi jëfëndiko na foofu naaloo dafa mel la borom la waji waxe ibnu malik bam waxe qala muhammadu ibnu malik ahmad rabbi la khayra malik lan la ko wax ولم يقل يقول لكن قال لأنه نزل استقبالا منزلة ما دي لقوة الرجاء محققا وقوع ما له ارتجى لولا بعد في نكوفي نالو لو وقل ينالو دنيا أم بباري كل يقول شيء إبراهيم رك دنيا أم سحر داريني فكين غير كوميرس دنيا أم boy jang da nga xam boy liggey da nga am ndax dañ ne ku bëgg sans ak licence ma ne kan mooy borom sens ak licence borom bàyyi Cheikh Mahi mii toog misri moo ñu waxoon ne pour ngeen xam ne jëmm Cheikh Ibrahima moo toog ngeen jéggal ma de waaye dina wax bayit boobule misri moo ne woon in qaaba ana jismuhu fa maqaamu la dalaay baaqin wal maathiru tashhadu fa abnaa'u lxuril kiraami shifaatuhu bi attachafu wal xayru minhu tajaradu kon wallahi Cheikh Ibrahima moo toog nii mooy Cheikh Mahi Niass mii toog Cheikh Ibrahima la kon ñu wax na Jibril Diop kontaan na boo xam ne mënul leen a fay yéen ñu gis bis bu mag bi ngeen tuddee ko ko wallahi ñàpp ñëpp teew nañ bu jotaay bi xaratoon wallahi dinaa wax waaye dafa xat ndax añ maa wax loo doonte mënu maa wax waaye dinaa wax ci mëttu cheikh bi waaye nag mënu wax kon daal ñuy wax ne waa ñàppa ñëpp kontaan nañ ñoo ngi gërëm ñoo ngi sant di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu lii la wax nag mi ngi nii jasakumullahu xeeran dondu nga ci bàyyi ngelaw yoo xam ne géej gi hin ba yut ma leeral ko seex ma yi teg koola boola lim la xadim la si diine jeeg tariqa seex ak faydatu Ibrahim yëkkati wallaahi lu xam a tax sopp la bëgg la moom mooy li tax Cheikh Mahi ñun ràpp nañ ñun rafle nañ ñu ngi tataal su ki man Baay Ñas macha Allah jërëjëf alhamdulillah